waa Thiès vraiment euh, ñun sax dañoo yàgg di lëkkaloo ak Thiès balaa programme bi euh, euh, maa ngi ko doon wax sànq Thiès moom dañoo jëkk ndax dañu xam pas-pasu jigéenu cees ci mbirum maanaam lépp luy ay microcrédit ak yëngatu ci mbay meeg yooyu surtout mbayu lëjum yi ba nga xam ne ñun dañu teeloon a xalaat ñëw weccoo ak waa Thiès ci mbir yooyu loolu taxoon na ñu ñëw fii en 2012 daje ak ay jigéen yu mel ni waa Refabek daje tam ak jigéen ñu nekk Mboro euh, dem nañu foofu ba euh, Daaru Xuddoos tam ñu daje ak jigéen ñi ah loolu tamit ñu feddaliwaat ko en 2013 2013 2014 fexe ba jigéen ñoon ñoo fekk si suñu jigéenu Casamance yi ñu def foo benn forum économique bu mag yàlla dogal tam bi li jóge euh, ñu ñëwati encore Thiès. comme ni mu ko waxee sànq Thiès defoon na daaw benn atelier identifier euh, fexe ba ràññaatle benn yëngu-yëngu boo xam ne bu ko yëngoo Thiès dinañ xam ne ñoom dugal nañ euh, seen loxo ci dox jàmm ji euh, macha allah defoon nañ benn rassemblement bu mag ci fi ñuy tuddee place de France defe naa suma juumu foofu lañ ko defee woon boole ci tànk jox don yu bare jigéen ñi su kanam sax xam naa ni dinaa leen wax. gox bu nekk yenn village la tànnoon ndax dañoo tànn fi nga xam ne fa la gën a méttee lu mel ni Butuba Kamarakounda lu mel ni Diakounda lu mel ni Djinaki lu mel ni Niassia ci commune yooyu foofu la ñu xalaatoon ne foofoo gën a metti ñu wasaare fa don yooyu ñu joxe woon